ñoo ngi leen di nuyu ku su nekk turam ak santam dal leen ak jàmm si xibaar Pape Ndiaye Walf Fadjri daal di nay retour nag ginnaaw ba nga xamee ne nag toogoon na lu yàgg àdduwut moom Pape Ndiaye nag daal di def ay révélation yu doy waar moom Pape Ndiaye nag dafa mel ni dafa bëgg a solaat mbubb mi nga xam ne nag moom lañ ko xamee woon gannaaw ba nga xamee ne gëj nañ ko gis lool muy wax ko ne nag dina retour dina ñëw dina am lu mu àddu dina wax loo xam ne daal Sénégalais yu bëri. xamuñu ko te maanaam nag ni mu daa waxee dina ko changé maanaam côté bi nga xam ne fa la faroon ñu man koo wax maanaam dina affaire yi dina changé dina wëlbatiku moom Pape Ndiaye moo wax lu ne mel muy wax que ne nag maanaam j'avais euh, démasqué ñëpp ñoo xam ne dañoo bëgg ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko des ci kaso bi te maanaam nag duñ ko feeñal ci seen ay kàddu mu nekk lu doy waar moom Pape Ndiaye moo ko xam ne mu ne am na ñoo xam ne. seen bëgg-bëgg te ñu ngi si opposant bi dañoo bëgg rek kii di Ousmane Sonko des si kaso bi bu mu génn mu nekk lu doy waar Pape njaay moo wax lu ni mel mu ne ñun ñëpp nag dina leen démasqué Pape Ndiaye moo àddu lu mel mu nekk nag kàddu yoo xam ne doy na waar loolu gannaaw ba nga xamee ne nag wax na ko Walf Fadjri mu ne balaa deux mille vingt quatre balaa élection yi lu ni mel moom dina leer naññ si sénégalais yi ak tamit kii nga xam ne moo di général Moussa Fall. moom Pape njaay muy wax que ne général Moussa Fall ñu bëri ñu ngi wax si moom loo xam ne nekkul du dëgg maanaam moom jàpp na ne ki nga xam ne moo di général Moussa Fall mooy général bi gën a gën bi gën maanaam si ñi nga xam ne mas ñu nekk général si li mu jàpp moom moom Pape Ndiaye moo àddu lu ni mel mu nekk nag ay wax yu day waar mu ne nag dina si ñëw loolu lépp dina ñëw leeral ko. nañ ko xaar wal fajri moom pap njaay mu nekk kaddu yoo xam ne doy na mu jëmale ko si kii nga xam ne nag moo di ousmane sonko tey moom pap njaay mooy àddu wax muy wax ñu bare bare bari jamono ji ñu ngi maanaam ab jox ndaw ñi ngir nak ñu daal di dugg si gaal yi dem europe mu nekk lu doy waar moom pap njaay moo ko wax mu ne nag yooyu yépp nag dina si ñëw am seen jox